docteur Soukeye Gueye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci mi FM. maa ngi lay fay di leen nuyu également di nuyu waa Rewmi FM yëpp. juriste euh, fiscaliste waaye it euh, nekk ci euh, géewu politique bi ba tax nga samp sa ndënd ca mairie bu yëmbal ñu dooree ki nga xam ne mooy juriste fiscaliste bi bëggoon a xam lan la yenn notion yi di wund comme redressement fiscal mooy lan. waaw redressement fiscal boo ko déggee ab daan la daan buy jóge ci eh, kuréel giñ fi teg ñu war a saytu. lépp luy impôt ak taxe yuy jóge ci gafakaak entreprise yi ak personne nit ñi di dugg ci gafakaak nguur gi mhm. su fekkente ni yow da nga war a fay impôt wala taxe su fekkee fayoo ko bu baax fay nga waaye li nga fay dafa tuuti mhm. wala boog sax xamuñu la ma yaa ngi def say activité te masoo ñëw impôt mhm. masuñu la xam bu boobaa administration fiscale moom am na yàlla maanaam droit may na ko mu def benn contrôle maanaam saytu su gisee ni yow am nga loo ko ameel mu bind ko Mhm. laaj la ko su fekkee tamit def na saytu ni yow yaa ngi am activité te masoo ñëw impôt mhm. masuñu la xam loolu aussi yoon may na ko mu def ñuy wax taxation d'office waaye ci gàttal ñu jàpp ne redressement fiscal mooy ku war a fay impôt xëy na mu fay ko fay bi baaxul wala boog fayu ko mhm. wala mu doon làqatu wala muy def ay njuuj njaaj administration ni comme que da nga maa tooñ au lieu nga fay ma benn dam da may fay ñaar téeméer lu ci ëpp redressement fiscal sanction la maanaam daan bu méttee méttee métti la mhm. bu ñuy teg ci ci entreprise yi ak personne physique yi ndax mën nañoo jàpp ne mooy ñàkk a bañ a fay impo waaw mën nga fay impo mhm. ba pare ñu redressé la nekkul ni rek da ngaa fayul carrément déedéet dama dama liste léegi nii Mm-hmm. mën nga war a fay par exemple mille mille francs mm-hmm. nga def déclaration fay huit cent mm-hmm. xam nga da nga amee administration fiscale deux cent su boobaa moom mën na la redresser ni la la ma fay matul wala boog nga waroon fay au lieu nga ñëw déclarer normalement maay nga am ay njuuj njaaj yoo def ba fay moins wala sax book ñëwoo carrément fayoo kenn gisul la kenn xamu la bu ko defee moom bu lay redresser da lay sanctionner sanction la redressement fiscal moom maanaam daan la du rek li lañ lay redressé déedéet hmm. saa buñ la redresé dañ koy yokk maanaam day nekk genre pénalité su ma ko mënee wax ci kàllaama tubaab mooy dañ koy yokk gën koo fulandi ba mu gën a metti mhm. ndax dañoo jàpp ni yow da ngaa jubalul kom ko jubaloo nag buñ lay daan day metti mu am euh, li xew ca des médias euh, ca ndorteelu mbir mi ñu daan dégg lu bëree bëri quitus fiscal redressement fiscal lan moo wutale ñaari notion yooyu waa quitus fiscal benn attestation la hmm. maanaam bu fekkee nit ki dafa fay l'impôt ba pare su fekkee da ñëw déclarer par exemple avant le quinze nga déclarer hmm. soo déclarer pare ba ñu jox la sa sa li ñuy wax quittance ca ëllëg sa mën nga ñëw daal ni ñeen lay defal quitus waaye ne yow ñëw nga déclaré waaye quitus bi day wane rek yow ni déclaré nga mhm. waaye est ce que li nga déclaré la wala du dëgg loolu du quitus bi moo koy indi mhm. léegi bu fekkee dañ la jox quitus bi léegi administration fiscale ñoom fi nga déclaré dañuy jël këyit yëpp ak déclaration bi ak chèque yëpp ñu jox ko seen contentieux service bi nga xamante ne ñoom ñoo ñooy saytu ci biir a biir ñooy gëstu yow li nga waroon déclaré mhm. ci gëstu boobu ñoom dañuy xool yow am nga comptabilité am nga ay facture yoo fay am nga ay chèque yoo encaissé am nga loo jaay am nga loo jënd et cetera loolu yëpp ñoom dañ koy gëstu mhm. buñ ko gëstoo nag ñu xool yow lan nga waroon fay dëgg-dëgg su dee nangam nga waroon fay ñu xool ba xam bu dee loolu nga fay c'est mm-hmm. ok amul lañ ciy wax waaye bu fekkee dañoo gëstu ni li nga woon fay yow tuuti nga ci fay wala boog fexe nga def nga ay pexe ba fayoo wala boog alal ji fexe nga ba mu génn mm-hmm. ñoom ñoo xam yow point bu ci nekk la ca daan dekk ñu jël loolu bind ko jox la ko loolu mooy nekk redressement bi pourtant amoon nga cutis mm-hmm. waaye tamit redressé nañ la donc du rek bu ñu amee cutis mënatoo mënatuñ la redressé loolu aussi jar nañu ciy bàyyi xel waaye cutis bi nag day waaye na yow day dalal xel ni yow wax dëgg yàlla voilà day dalal xel. tey ñu gis ne système fiscal sénégalais euh, mën na laa accordé euh, nee ñu benn présomption de régularité ndax li ni mel lu dëgg la. waaw tey ndax am na àpp. fitus bi mhm. mooy mooy waye ni yow ñu xel mën na dal ni yow fay nga impôt. Mhm. waaye yoon dafa ne. même bu fekkee am nga fitus boobu yaw ci atum deux mille vingt et nga fay sa impôt. Mhm. ñu jox la fitus yoon dafa ne la sa këyit yooyu nga faye woon. sa déclaration da nga ko war a denc lu mu gàtt gàtt fukki at. sa entreprise. ko a daal ñetti at ñëwaat def contrôle fiscal ndax loolu yoon moo ko may dafa am délai boo xamante ne yow document yi nga déclaré woon say facture sa comptabilité sa livre grand livre yëpp da nga ko war a garder pendant au minimum fukki at su fukki at yi passé nag ñoom mënatuñ la ci topp waaye fukki at yooyu mën nga amoon putis ñu wàññeeku waat di gëstu di xool ba xam yow nekk nga en règle wala boog nekkoo en règle tey jii ci gëstu googu le ñu gis euh, dellusiwaat ci euh, contexte bi waral waxtaan wi tey des médias ndax euh, mën nañoo wax ne processus bu normal ci lañu jaar maanaam descente bi ñu gis ak banque yi euh, seen compte en banque yi ñu bloqué woon bu yàgg. donc processus bi xaw mënuma ni normal na wala normal waaye li ma mën a wax mooy. saay bu redressement fiscal amee. yoon dafa may li ñuy wax des garanties maanaam day jàppale ki nga xamante ni moom la ñuy redressé tey jii yoon dafa am ay droit yu mu may des médias ci redressement bi. Mhm. droit yi mooy lan su fekkente ni administration fiscale dafa jàpp ni des médias fay na waaye li mu fay bëriwul wala boog amel na ko bor daf war a bind li ñuy wax bindee jox ko des médias yoon moo may des médias mu xam charte bi yoon moo xam may des médias mu mën ci tontu bu ci tontoo ba pare administration fiscale bu fekkee d'accord na ci tontu des médias yi notam normalement dañuy jeexal procédure bi. Mhm. waaye bu fekkee administration fiscale moom d'accordul wala boog li ko des médias wax dalul xelam. Mhm. su boobaa moom day continuer yoonam te ci yoon bi moom bu koy continuer des médias aussi am na yoonam bu mu mën a jël mën na def recours. gracieux mhm. jox ko waa administration fiscale mën na dem tax ba recours def recours ci ministre bi mhm. su fekkee loolu yëpp aboutirul des médias mën na dem ci yoon ca tribunal de grande instance def fa recours wax problème bi mu am moom kii nga xamante ne mooy administration fiscale mhm. pendant ce temps nag administration fiscale moom aussi am na lu ko yoon may yoon moo ko ni fu la ameel mhm. mën nga fexe ba mu fay la si fexe boobu mu koy fayee nag mooy tax muy dem laajte banque yi nga xamante ni des médias am na fa ay compte mu dex li ñuy wax mémise maanaam teg ci loxoom mhm. daal ni banque yi damay teg sama loxo fii ba dee médias fay ma wala boobu ma def sax réquisition loolu lañ def keroog bay dugg seen bureau yi di xool di inventaire mais dama jàpp ni loolu mënagul nekk tant que yoon moom vidéowul contentieux bi maanaam problème bi am seen digg moom administration fiscale mënagul jël alalu D-Média di ko jaay parce que jàpp naa ne waa D-Média yóbbu nañ affaire bi ci yoon def nañ seen recours def nañ ay réponses ñu war a def dem nañ ci tribunal donc loolu foofu ñoom ñooy acté ndax assiette bi maanaam li liñ leen di toppee mm-hmm. dëgg la wala du dëgg su fekkee dëgg la D-Média am na droit daal di wax ne moom mënul fay lépp léegi-léegi mais ñu may ko ay moratoire loolu aussi dañ koy xaral di fàtte maanaam nekkul ñu ne da nga ma ameel bor man administration fiscale da ma koy fay léegi léegi uh-huh. wala nga tëj uh-huh. parce que administration fiscale rôle am uh-huh. mooy fexe ba état di am ay koppar pour mën a dund bu ñu fexe ba entreprise yëpp tëj kon état xaalis boobu mu doon am ci entreprise bi fan la koy jëlee ah du day dem di leb donc loolu cette fonction sociale là de l'impôt dañ ci war di gën a xel waa administration fiscale nag ñi ngi góor góorgóorlu wax dëgg yàlla mais pour cas bi moom nañu gën a tempo temporiser mhm. ñu gën a bàyyi passion bi parce que passion bi bëri na ci trop trop trop de part et d'autre nag fexe daal ba euh, seddal affaire bi bu dee bor bi dëgg-dëgg am na mhm. ñun xam ñaata la mais également ñu wax des médias nan la ko mën a fayee moom aussi mu nangu fay loolu continuer liggéeyam administration fiscale aussi may ko jàmm. ñu gis ne tamit gouvernement sénégalais euh, daa dina valider exonération fiscale entreprise yu bees yi loolu tamit lu muy wundu. waaw exonération fiscale moom dafa bëri sax Sénégal entreprise yu bëri. dañ ko am am na nag ay façon ngi exonération yu bari am na lu ñuy wax exonération d'une entreprise en zone franche am na lu ñuy wax entreprise franche d'exportation entreprise boo xamante ne dafa nekk Sénégal di liggéey waaye comme que moom li muy yóbbu bitim réew plus de quatre vingt pour cent lay fa la koy jaayee bitim réew la koy jaayee kooku du fay impôt wala boog li muy fay du bari. am na aussi li ñuy wax exonération bi te ne yow c'est parce que zone bi nga nekk ku ku fa nekk ñu fa entreprise du fay impôt. Mhm. mooy par exemple la ZESTI la zone euh, spéciale intégrée de Diamniadio foofu noonu zone industrielle Diamniadio boobu képp ku fa am agrément toog fa di liggéey. sa mhm. entreprise da am exonération fiscale. waaye aussi douanière te exonération bu mën na am ba dem ba juróom fukki ak hmm? mën nga ko toog doo fay am na aussi li ñuy wax exonération coût des investissements loolu boo xoolee entreprise yi ko am hmm. surtout bu dee euh, zone franche euh, industrielle bi hmm. boobu ministère des finances rek moo am possibilité joxe ko exonération coût des investissements APIX ñoom mën nañ ko délivrer GIE bi zone zone spéciale Diamniadio bi boobu ba dafa am haute autorité bu ko mën a délivrer. Mm-hmm. lu ñu ciy jàngat xam ngeen lan la. mooy boo defee gëstu ci entreprise yi am exonération yooyu yëpp. Mm-hmm. c'est des entreprises étrangères la plupart des cas. Mm-hmm. ñoom ñoo ci ëpp doole. léegi bu dee entreprise étrangère bi moom dafa ñëw ñu may ko exonération muy liggéey ak tey bakkanam du du fay. mais nañ ko nañ ko yombalal entreprise nationaux yi na nationales yi autant pour moi. pour ñoom aussi ñuy mën di liggéey di fay waaye foofu tamit dañ fi xam xaw a duut baaraam entreprise yi nga xam ñi ngi Sénégal mm-hmm. parce que ñoom au lieu jéem a xam lan la leen yoon may ci maalum impôt mm-hmm. niche yi nga xamante ni mën nañ ko exploiter da nga gis fu am xaalisam rek bëgg a investir ten day ñëw investir alors que fiscalité am na ay niche yu bëri yoo xam te ne danaan la domaine bi boo fa investir mm-hmm. état bi da lay may exonération donc nañ ñoom tamit ñu jéem a xam loolu daf ciy baax trop te bu ñu xoolee ci exonération yooyu nga xool am na récemment benn entreprise bu nekkoon Sabadola ci transaction yi amoon bëgguma suuru seen tur mhm. mais dañ leen redressé redressement bu metti mais fan la mujj te c'est beaucoup d'argent ci ci ci or bi lañ leen lañ leen redressé mhm. te c'est une entreprise qui est cotée en bourse au niveau international mais ba tey boobu amuñu ay suite bu dëgër donc loolu aussi na ci état bi bàyyi xelam mais aussi entreprise bi li leen yoon may nañ ko jéem a fexe xam ko mais également ñu jël ko. ñu jeexaleeg politique bi ci quelques mots nga bokk jot na euh, fa yéene jongante foofa ca yëmbal sud yëmbal sud ku ko tudd euh, wax Bara Gaye muy meer bi nga xam ne tey parewul pour bàyyi lenge gi ndax jàpp nga ne mbir mi dina yomb ci yow. waaw mbir mi moom du yomb xam nga politique yombul. waaye Bara Gaye moom il fini moom jeexal na. jeexal na ndax jeexal moo waral. parten bi nga xamante ne mooy PDS. mu xam ni mënatu fa am dara. mu jóge fa di buuxante ak waa population de yëmbal dañ ko tourner le dos day faral di wax nag ni naan yëmbal maa moom mais day nax boppam te élection yi dina xam ne yëmbal moomu ko waa yëmbal ñoo sonn ci moom ci ay naxem ak ay rusam ak ay njuuj njaajam koo xamante ni dafay am budget mais bu tabaxee benn benn benn benn bureau sax dina wax Sénégal yëpp mooy le meilleur maire te ñun gis nañ situation bi yëmbal nekk situation de léthargie situation bu métti métti bu population bi di dund ñu amaat aussi koo xamante ni day xëccoo koo xamante ni ministre ñu jox ko coopération et cetera mu ñëw ni dafa bëgg jël maire yëmbal sud mais yow bu fekkee da nga nekk maire yëmbal da nga nekk ministre te yow au niveau de yëmbal sud amul benn acte boo xamante ni gis nañ ni lii ministre bi moo ko posé lu dul bàyyi ba élection yi jot nga ut sa xaalis sa maletu xaalis ñëw di distribuer nit ñi cinq mille ak deux mille ak dix mille loolu dama jàpp ni population yëmbal li ñu gën soxla jamono yi mooy génn ci ndox mi ndax ba tey jii may wax ak yéen am na zone yoom te ñu ngi ci biir ndox mm-hmm. mu mel li ñu gën a. waaw li ñu gën a yitteel mooy suñu tali bee nga xamante ni nekkatul sax tali. Mm-hmm. muy la route 103 kenn xamul nu mu mel. li ñu gën a yitteel mooy la l' autonomisation des femmes. Mm-hmm. ku nekk xam na ne jigéenu banlieue ni ñu sonnee. dañoo daw a daw a daw. amatuñu ndoxu bakkan li ñu gën yitteel mooy fexe ba jeunes yi ñu naan banlieue waa yëmbal ay agression bi dafa bëri hmm. ñu fexe ba jeunes yooyu am ci lu ñu jàpp parce que kenn du agressé ak sa teeyu bakkan képp ku am ci liggéey bu dëgër boo jàpp doo dem di def naka sudul noonu donc ñun autant de fléaux yooyu nekk ñoom la ñu gën a soxla te population bi dafa pare pour demal boppam loolu ñoom war nañ ko xam bu baax a baax a baax ñaari camp yooyu yëpp ma wax ñoom xam nañ ni population yëmbal pare nañ ci ñoom du yomb nag on le parce que dinañ def seen i moyen xaalis bu ñu am dinañ ko fa këpp ku daawul joxe subvention di nga yaa ngi woote di joxe ay subvention écurie yi ñu daan seetaan ak ak léegi ñoom ñi ngi wàññeekuwaat daw seen ginnaaw groupement de famille ñi ngi ñëw di leen neexal mais corruption là ne va pas ñun xam nañ bu baax fi ñu jëm. nga am ligne de mire ñaari nit muy déjà maire ba fa nekkoon ak euh, ki nga xam ne mooy ministre hôte euh, tey yow ngay jigéen déjà ndax foog nga ne euh, foofu ca yëmbal sud pare nañu pour jox li nga xam ne mooy diwaan bi jigéen. waaw du du du question genre maanaam du question góor wala jigéen. Mm-hmm. ñoom dañu dama nekk ak ñoom ñu gis li may représenté foofu gis aussi sama taxawaay dañoo gis taxawaay jigéen ci mim réew waaye taxul ba tey euh, bu amee ay élection gis nga tey ji pourcentage bi ak xeexu caucus des femmes bëgg nañu atteindre dix pour cent lu ko waral mooy sénégalais yi ba tey ñoo pareegul pour jox jigéen ñi ndombal tànk loolu nga dama dama ciy ànd ak yow bu baax ndax mhm. boo xoolee élection locale yi passé cinq cent et na et quelques fukki maire ak jigéen yu ak juróom kese lañ ci am yu mhm. jigéen ñi ay góor lañ parce góor ñi da nekk ñoom yaa leen mën lépp mais bu élection jotee ba ñu war a nekk tëdd liste dañu lay xeex pour war yow nga bañ a mhm. jiite donc ñun ñii di jigéen ñi est-ce que dañoo war a croiser les bras rek ci loolu duñ ko mhm. def ndax population bi kat liste bu ñu leen présenté la ñuy voté mais bu dee yow muy jigéen xeexoo ci biir xeex rayante ba nekk tëdd liste ah population bi tëdd liste bi euh, liste bi ñu leen présenté lañuy la ñuy voté te du population bi ñooy tànn généralement tëdd liste yi tëdd liste yi comme ni ko caucus des femmes defee ñu koy saluer bu baax ndax dimanche seen investiture bi ñu def wooñu ñun ñi nga xam te ne ay candidat lañu jàppale ñu wan ñu ni ñu ngi suñu côté su ko chef de parti yëpp defe woon borom mouvement yi defe ko noonu kon dinañ am une forte représentativité des femmes en tête de liste parce que ñu mënuñu dara ci parité bi bi mooy tête de liste yi que bu biir parité am na ci nekk góor aussi le combat reste entier mhm. donc ñun képp kuy jigéen ku bëgg nekk tête de liste na nga xeex rayanteeg ñoom bu ñu la nax bu ñu la jéem wax naan sama sœur nga jàppale ñu gis nga rulu <clears throat> dem di tàccu ak di leen mobiliser ñun da wan ko waruta nangu moo fi war dàqu ñu ñu dafay war a jeex dàqu ñu gestion des finances publiques dàqu dàquñu ñu gestion des collectivités locales dàquñu ñu management loolu yëpp bu ñu ko toogoon ak ñoom dàquñu ñu ko donc lan moo des ñun ñooy nangu toujours di leen bàyyi ñoom ñuy nekk ci kanam ñu ñuy nekk ci ginnaaw loolu damay je lance un appel képp kuy jigéen ko ne bëgg a nekk tëdd liste mm-hmm. demal xeexal ba jusqu'au bout bul bàyyi bul dellu ginnaaw bul ragal dara vas-y jusqu'au parce que ñoom mënuñu te ñoom tax xam nañu mënuñu. docteur euh, euh, Soukeye Ndeye Soukeye Gueye euh, ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci maa ngi leen di jaajëfal yéen aussi di jaajëfal seen rédaction bi bu baax a baax ci waxtaan bi.